ihdina siraatal mustaqim siraatal liin anamta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen bokki déglukat yi bokki dëkkandoo yi bokki julli yi bokki am di jàmm yi déglukat yu góor yi ak yu jigéen yi maanaam auditeurs yi ak auditrices yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen siyaara te di leen ñaanal jàmm tey sàkk ci yéen ngeen di ñaanal jàmm li ngi ñaan suñu kàddu bi yàlla na fekk leen yéen ñëpp ci jàmm ñu di leen baal àq waaye ñu di leen baal àq fu mu toll di ñaan ci yàlla mi nga xam ne moom mooy borom jàmm te fu mu ko def mu def rek yal nañu yàlla boole defal jàmm xam naa mu mel ni kon. لني واحد معي كتب بيتي أي نسبة كنغنيو ولا كتب بيتي كتب كنغنيو كون سنو كونيو بومنا سنو سيار نينتي جيتل سنو كيلفة سيار محمد لون تخام باكي ميرا خانو وفنة الخادم وصول سيار محمد الخادم واحد دقي على تماتي كتك أه di siyaare mboolem ay sëtam ak ay doomam yi mu fi nekkal yi mu ko bokkal ak njabootu seex yi xaadim sol yi nga xam ne ñoo fi nekk ànd ak moom di ko gunge ci liggéeyu sëriñ Bamba bi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaare di ñaan jàmm ak salaam waaye di nuyu maam Cheikh Ibrahima waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall te moo di sëriñ Cheikh Jëmb Fall ndax ku ne xam ne boo nee ah, waxtu wone ne sëñ Bàmba kat seex bi rekk ci war topp waaw saa yoo ne sëñ Bàmba maam seex rekk ci war a topp ndax ñoom ñaar la woon démb ba xew-xew kon sëñ Bàmba fu mu nekk maam seex a koy gunge kon mu mel ni xam naa waatu gunge bi sax dana ci waxal ndax gunge moom dees na ko def ki bëgg ndimbal ki bëgg gunge moom ñaar mooy ki ragal fi jëm waaw waaye kii gunge yi ñaar day fekk mu toog na ki muy gunge ragal ñemewul fi jëm waaye nag lii moom gunge lañ ko mën a tuddee ci waxi orab waaye ki ñuy gunge mu xaadimu rasul ci Ahmadul Xaadim moom ñeme na fi mu jëm te ma xam Cheikh Ibrahima Fall mi koy gunge moo moo la gën a xam ni ki ma àndal moom ñoo ko jëm kon daal xanaa ñoom ñaar ñoo yàgg di ànd waaw bu sëñ Bàmba ne fii de maam seex fàkk ñu àgg suuf kon nag loolee mooy dox ba tey loolu rek mooy dox ba tey kon ñu ngi nuyu sëñ Cheikh Jëm ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di mu bokkal Cheikh Ibrahima Fall ñeet muy sëti maam Cheikh Ibrahima Fall ci boppam ak i njabootam ak mboolem njabootu waa kër maam Cheikh ñi nga xam ne ñoo aju seex yi aju woon ñu nuyu ñëpp di siyaare waaye ñu dëkk fii nekk ci kër gi nga xam ne fi ñu nekk muy Baol Média te mu nekk fii ci Mbàkke ci boori tableau tia bi ci xale bu mag bi nga xam ne mu bàyyi koo fii fi Mbàkke jëm te dëkk bu mag ba te jumaa ju mag ja te sëriñ bu mag ba mu di kan muy xaadimul sotti Ahmadul Xaadim kon ñu ngi ci kër googu di Baol Médias di nuyu nag mbooleem waa Baol Médias gépp waa personne Baol leen nuyu waaye ci nuyoo bi nag ak tiyaa bi mi nga xam ne mooy njiital kër gi kër moom lay wax ne tutut boo ko duggee rek na nga jëkk nuyu borom kër ga kenn ko war a nuyu dina la boole moom ngeen nuyoo waaye ñu tiital soxna waat xapaal ak di jëpp ko pàttewulu ko ak Baye Cheikh Gaye di jàll ak Serigne Moustapha Thiam Cheikh Mohamed Niang te Ndindi Ibrahima Khalil Diop moom daal ñu ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp di baalu ñëpp àq yàlla nañu yàlla boole jégal mu mel ni kon xam naa dañu bàyyi suñu technicien bi tuuti rek te ñëw nag ci émission bi nga xam ne moo tax ñu toog fii tey bëgg waxtaan ak nit waaw mu mel ni kon dañuy daal di ñëw rek ci émission bi émission bi nga xam ne moom lañu ñu gànjaru xel dañ ne xel nag ñu ne xalam kon xam naa li ñu njëkk wax mooy lan mooy gànjar lan mooy gànjar te ni ma ko xamee woon démb de te ñu bari daan koy waxee yaakaar na mooy li ñuy wax tey takkaay tey nag or bee fi fees dell ak yeneen ak yeneen moom la ñuy takk tey mu fees dell ci bari bu njëkk xam naa warantu woon waaye bu njëkk xamoon nañ li bi ak taqi pewe ak la mi xaalis loolu bokkoon na ci takkaayu démb ak ay teqal maa ki njàllaxi bopp yooyu yëpp ci ak ci takkaayu jigéen ñi la bokkoon ay teqal ma nga xam ne ñu ko daan def ci tànk boo ñëwee bay jub wóom bi te àggoo ci diggante wómbir laxul tànk bi boo fa daan takk ay teer yu yoo xam ne dañ ko daan ñaw ak piir bu ñuul ak piir bu bulo ak bu xonk boobu moo ëpp ñaw ko ñaw bu rafet ñu naan ñaw sulli jigéen ñi dañ ko daan takk di ko rafetali seen di ko di ko ko ci seenu taar dañ daan takk li bi door muy xaw a toll ni aw juróom te doon la waaye tooy te yaakaar naa or daa doon di lang daan doon ñaar ba ñett di rawaate ci jëbi ñaar ña ko daan takk mooy ña nga xam ne ñoo daan takk létt yoos ya létt yoos nga xam ne létt lay doon yoo xam ne montage la montage la daan doon da nga koy teg ci kaw bi dañ ko daan sol ci bopp bi fi tolloo noppi def lu mel ni béjjën day sànn xam naa ci ay soxna yu fi nekkoon yu sel yoo xam day sànn ñu ko daan takk kon booba dañ daan takk lii nga xam ne moom lañuy wax njarax ñu ko takk fii ci tikku jara nga xam ne tikku jara tey ñun ñëpp tikku jaar boo ne tikku jaar daal ñëpp am waaye am na ñoo xam ne xamuñu tikku jaar ja lu mu doon nag ci gone yi kon loolu mën na leen de mooy dafa nekkoon takkukaayu njare fa lañ daan takku takk njare ñu wax takku njare fii tolloo sa takku njara bi fu ngay takki sa njara bi takkukaayu njara takku njara bi moo dem ba den far tikku jara kon nag sëkku jaar rek laa ci xam ne foofu moom te ñu ko ñu ko olof tuddee kon loolu lu jëkk takkaay la woon waaye daani takkit li ñuy wax takku peme da ngay gis ndeysaan ku ko daan takk mu dem ba romb dënn bi bay jum digg li wala mu lem ko ñaar dóor ko ba noppi mu langaat lu bari mu doon takkaay loo xam ne ñaare daa nga ko yor boo demee ba am nu jamono demee ñaare da ko daal gis ñu ko nocc pari pari di ko jaay boo ko jaayee mën cee faj soxla loolu bokkoon na ci takkaay bu njëkk waaw waaye nag buñ fàtte ne boobee kat <coughs> ngeen baal ma lii ñuy wax gànjar fas yi dañ ko amoon demoon na ba ay am na lu mel ni ndomb yu ñu daan liggéey su lu ko defar ko ci buum ba mu rafet lool ñu ne ko takk ci wëq wokk wëq wëq fas bi xam ni sax dañ ko tey daan takk appareil booy ko takk ci lu mel nasta lu mel ni ay jaaro defat collier gu rafet pegg bi yëpp nga daaj ko loolu ñuy wax ponture yu baas mu mel ni xànjar nga defal ko boobu nga nga defal ko loolu ñuy wax nga xam ne moom la ñaa wax looyee ci fas tur ba dëgg-dëgg fàtte naa ko nga xam ne la ëppoon nag ci fas mu ko daa defal ñaari mooy fas wuy tiit nga xam day tolloog bët yi mel ni ñaari laf yoo xam dañuy tolloo ak bëti fas bi loolee dana alquran te te tiit ndax dana dana am fas yu tiit ñu ko wax fas wi day xoox boo déggee fas wi day xoox mooy wuy tiit daal gis wuy daw ba mu yàgg am lu jekki-jekki traversé wetu ba mu tiit bu tiitee mën naa man man man mën na ne def noo xam ne bu ko defee boo tuul ñu woon ci kaw saret bi wala wala ki waroon ci kaw fas bi mën naa am problème waaye boo ko takkalee lu gis li ci wetam li ci kanamam képp lay xool surtout bu di dem kat nga xam ne fas boo xam ne foo ko fekk ma nga tàllal ñaari noppam jëme ko ci kanam foofu ci ci daanañ ci xame fas boo xam ne bu déparé bu dee bu dee course bu déparé war a raw wa wala du raw parce que nga fekk mu taxaw boole ñaari nopp yépp dëngal ko jëme ko ci kanamam xel mi ci kanam la nekk boo ne ko ay tëri mooy waaye en face yoo xam nag da nga gis ñu taxaw nopp yi nekk ca ginnaaw bu ak ñaari noppee ci ginnaaw parce que moom xel ma néewul ci dem foo ko yuuxooy foo ko bàccee bi yàgg ca ginnaaw rek lay des nga fekk face boo xam ne moom noppee day wëndeelu xel mi néewul ci dem xel mi néewul ci ci ci dikk mën nga ko ne ay sax mu tëb taar jaaral yow su mbooy gi boobu boo wutee sa teg ba takka ba takkal ko fas wi fab sa mbàjjum déere mu rafet fab li ñuy wax ab la ji déelu bi jiite ko ca gannaaw fas ga fab fab fab teg gi teg ko ci kaw fas wi lal ci mbàjj mu rafet teg gi nga xam ne audi yi ñu ko daan liggéey di ko def noo xam ne defaral laab bi laab bi fas bi laab bi fas wi muy bu nga bàyyi ko ci laab bi jëm si ci kii war si kaw fas wi ñu daan ko wax tarka nga gis baam dara ju solu ba garaam bu yi wër ko gombe di jàgg ci kaw mu yéeg ci kaw fas bi mu yéeg mu yéeg mu fab tànkam ne ko roof ci dëggalu fas bi ak tànk bi ci des daal di àgg ci kaw gi teggi toog fam ñaari tànk yi teg ko ci dëggalu fas bi solu fas bi solu fas woo xam ne ne ñaari lay doon mën naa nekk fas weex ñu fuddan ko ba fuddan tatu geen ba fuddan tànk yi waq yi fuddan tatu geen ba defar ko ba mu rafet wat yëq ma watis bu rafet naa fas du yore rek lool bo fa ci ñaan tak ganjar ganjar gogo mo da tax fa romb la nga nek te di wax ganjar ga ak yafal ga rek ya bokk yow yafal mom bu suur bu lo du am kaddu ba wax waaw nga gis na bu jekk neeg it dañ na tak ganjar neeg dañ na tak ganjar nga xam ne boobu néegu ñax moo am baa moo bari bokk danga daan dem ci àll ba wut fa sa gaay gu jub ñaari gaarabu gaarab lawbe wala banti ngéejaan wala banti mangi yooyu bu njëkk moom lañ daan defar néeg léegi lañuy wax daaj néeg waaye booba takk néeg lañ daan wax booba dañ ko daan takk booba xàntal gi gis nga daa wut wala xàntal guy wala am am na xànc daal xànc yu dëgër ngay moom nga koy takk bu ko defee boo ñëwee te tëre ñeenti bal yi ñeenti balkaan yi ñooy tëdd suuf fekkee néegub néegub ñeenti koñ boobu kilifa yi néegub juróom-benn kañ la koñ la daan yor waaye ala kulli àddina li tëdd suuf mooy balkand moo xam ñeent nga ci wala juróom-benn mooy balkand ñooy ñooy ñooy ñooy tëdd ci suuf nga takkale leen ba na ànd ñoom ñëppay tolloo nag nga takkale leen ba na ànd. koñ bu nek da taxawal fa ben gayet tak ko ba and ak mom da yekati ko ba ca kaw nga boole ko puj ba tak ko dem ci koñ ba dem ko def ko ba puj ba puj bi taxaw ci digg bi nga doog top topp koñ yëpp ba mat da def nga nga defaat yeneen gayet ci diggante ñaari ñaari gayet yu ne muy néeg am jëmm waaw legi tak nga néeg bi ba noppi daal di laatu tak say laat def lepp boo noppee nga dem boobi ba xam na fekk na sax boob nga ba noppi mbob mu rafet booba mbob ñaxum mbob booba li ci dàq ñax mi dàqoon a xadd mooy bi ñuy wax ab réew ab réew li dara ma dul woon ni xadd waaye ab réew a dàqoon a xadd gudd te dafa nooy te dafa dafa dafa jubkaat te dafa rafet pal jàndax ko te bool di ko rafetal te rafetal yooyu def ay lu mel ni laar sa kaw topp la waaye man faat xañ jege noonu man bu ko defee boo wutee sa boo wutee sa sam ñax ba raba boobi sam ñax indi tàllal saw dënd fam ñax mi sariti fam ràpp yi joxe ñu cappoorlu séq dënd wi kenn ku nekk capp fi barab di rabaj li daan tëdd moo diw dënd ñax man ca daan sasaale loolu mooy sari sari ca ñax ma bu mu gàttee doon jox nit ñi ñu di ko rabate bu mu googee mooy rattu rattu lañ ko tuddee woon bu ko dañ cap kenn ku nekk ci xibaar ñuy rabat bu ñu rabatee ba noppi wut bant fekk fa tollee taat ñax ba di ko lal taat yi fab jaasi di ko cap ba ba ba taat ñax yi yépp tolloo bu ko ñëw di dagg après ay juróom benn mètre juróom mètre yu ne nga dagg taxañ taxañ taxañ ak si ci ma juróom mètre nga dagg takk ma du dënd ba dëndee ya pare bu dee néegub kilifa la ci ëpp naa danga daa wuti nag ñaxum baara wala wala ab dëmb moom lañ ko daan farxañe da nga koy farxañ farxañ mooy lan da ngay wut xam nga dëmb ak baal ñoom seenu ñax daa gudd am nañu ko daan defee sax ab xat boo ko nga xam da nga koy rafet ba noppi yii taaj bi jógee ca taaj ba pare ca kaw fa put ba cari cari la nga wut suuf yii ñax nga fab ko taaju sa ci suuf cari cari jëm kaw bu ko defee ñoom ñoom ñaar cari yawoon ca kaw ak yi ci suuf seen cari day daje ci digg bi nga ñaxu koog bu mel ni lu koy rabataat ci néeg loolu mooy par xañ bu ko defee nga doog a fab nag xadd bi nag ñax mi nag doog commencé xadd xadd na yaa ngi koy jël ci suuf moom jëm kaw di di wëndeel nag di yéeg ba ngay àgg ca put bu bu ko defee bu dee néegab kilifa nag ñaar boo xamante àgg da ko fay takk daal koy liggéeyee put bu teg put sax boobu bari na ñoo xam ne ñu ko takkam ñax xat lañ koy takk saa yoo xam dañuy takk bu dëgër def ko ñaari buum ba ñetti buum daaj ko ba mu ba mu ba mu maase ñoo tax bu ci sax ay ndon def ko lu mel ay bëñ joolaa ci pegg mu rafet lool nga yëkkati ko daaj ko car ya car ya car car car yëpp ne lañ nga xam ko dam ko ca pujum néew sëpp mu dem ba tafu nga boole kook fa ñaxum fa ñaxum xadd mu mujjoon akum ñaxam ñoom ngay boole nag di tëral ñaxum ñaxum ñaxum bu ñu fab ñaxum xadd ma ñaxu tëral ñaxum addoon fab ñaxum ku mët ya teg ko rabat bam bam ne néeg bu rafet nga xam ne boo ko ne yëkkat ba aj ko ci kaw ñëpp ñëpp kontaan defal ko ay tari ay tari ay tari xat yu rafet boobu ne kilifa yi ci dañ koy sosom sosom day sànn boo demee ba si dog yi ñaari ñaari morceaux yi nga xam ne ñooy séq fu buntu nekk wa war a nekk fu ne ñaar dog yooyu da ngay da nga koy sàkket ba mëf ko mëf mooy da ngay dem ba da da ngay sàkket di topp laaj yi ba laaj bu jeex nga mel ni lu ko wëndeel ba muur tati laaj yi fi ñu génnoon tati laaj doo fekk nga mel ni da nga koy muur dugg dugg moom ba ci biir nga dóor fa ñaari tibb la ñett boole ko takk comme déloon moo di mëf ba nga buntu boo bant doo fa mas a gaañ boo xam ne nga daan gis ñu daan wut butéel butéel yi am na woon na bu njëkk butéel liitar yoo xam daa amoon kóor kóor ca taar am li daal fab samp ko ci suuf dem ca gay ca gay ca bal gànd ba ñu ñu ñu duqi ko ba mu ba mu defar su mel ni tax ñu xab bant sot ko bant boobee ca lañu daan takk bunt ba bu ko waxee mu sëpp ci taatu butéel bi te ci xóot xóotu butéel bi ci tàddee bu ko defee day jooru comme ab comme comme ni bunt yi ubbi koo tey bu ko waxee ñaan ñaan néeg diw bee rafet tëdd tëdd néeg boobu tubaab fa kàll néeg boobu daa gànjaru mooy tax nit ñi di ca wax ñu daan ko defal gëléem takkal ko gànjar boole kook di ko tagg ba mu ba muy bëmb xam naa beneen yoo am na sama waay du ci du ci du ci kii lool dinaa fexe ba invité ko mu mu mu mu dikkal leen ci gëléem ak na mu daan sëbeeg na mu daan takkoo ak ak ak nañ ko daan wayaleeg yooyu insha allahu rabbi kon gànjar dafa am solo ci lu mën a doon lu ne dana tax ñu xoolaat ko waaw gànjar googu yi nag lañ wax ne xel moom it da ko war a am ndax lii ñu wax yépp njàng lenn lu ci nekk xel la gunge xel xel la xel ginnaaw yàlla xel moo tax lañ la doon defal lépp ba ñëpp di la yëm xel a ko doon def ci xel la woon kon kay ki soloon ñëpp ba ñu jekk moom itam war naa solu ki takkal ñëpp takkaay ba ñëpp di ba ñëpp di di di di la xool kooku war naa takku kon xay moom dafa am gànjaram gu mu war a takk gànjaram gi mooy lan mooy xalam waaye kon xam naa dafa mel ni waxtu wi mi ngi jege si kon ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp rek siyaare ñëpp di nuyu waa kër sunu maam maam Atukura Mbàkke bàyyiwuñ kenn nag ca kër ga jataay bee ko laay ko ñu tudd ñëpp waaye ñu ngi nuyu waa suñu maam maam Madou Faati Mbàkke bàyyiwuñ kenn ca kër ga ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn waaye di nuyu nag suñu xarit Sëriñ Masamba Seck waaye nag di nuyu suñu xarit di di di ñaanal suñu xarit maam Ibrahima Njaay maam Jaxi Laalo yàlla na ko yàlla yërëm ci darajey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke te amul doxam yàlla na ko yàlla yaram te jéggal ko barke borom Tuubaa ak suñu xarit Moustapha Sène ndeysaan te mbàkki bawal yàlla na ko yàlla yërëm moom itam jéggal ko te wuutul ko boppam ci ak njabootam yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def xam naa dañuy dégg ba yem fii ki nga xam ne moo nekkoon ci waxukaay bi ci àddu ngeen di dégg kooku mooy Bassirou Seck ndongal daaru bi nam seen xarit seen soppe seen am di jàmm ñuy wax ne waxtu danaa wax abina bi apiya tàkkoonu fi daaree ni xëy na apiya dimbal ak yërmande saahir ak baatin fan wu gudd waa ndeg wér gu yam liggéey ba ànd ak barke jaamu yàlla gu ànd ak nangu barke si ahmadul xadim biis ni rabbina wa jaay musa talaali rabak xarit dalay xaralës la ci yëfal ni la am koo xam ni kii du xaras lëf may la doo waayam sëriñ dalay jariñ ñes la yar la yor la bu wér xamal la nga di santam di ab jaar